Sénéinfo International. chers abonnés de Sénéinfo International sénéinfo.net dalee nag jàmm si euh, euh, seen euh, revue des lu gën a fes si xibaar yi tey mardi 19 décembre 2023. laas sax ah, laas moom nee na dafa commencé rek si Free Free bi nga xamante ne moom jënd na 5 treize virgule cinq milliards de francs CFA nee na Free sa cinq giga pour treize euh, euh, virgule cinq milliards de francs CFA loolu la journal bi xëy xamle tey euh, dans sa une mu newaat rek ci journal bi mu ne le F24 alerte sur un risque d'instabilité voilà pour élection yi di ñëw donc F24 moom mu ngi alerté ñu des rek ci journal bi mu ne migration irrégulière Euh, plus de 7000 personnes son mortes dans les eaux donc lu tollu si euh, juróom-ñaari euh, doomu aadama ñàkk dañ seen bakkan si immigration irrégulière boobu ñuy wax donc laa si ñëw fesal ko tey dans sa une Sud Quotidien moom dafa ñëw à sa une si promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit nee na l'administration en souffrance loolu la journal bi jeex def tey dans sa une nee na Pathé Ndiaye ancien directeur du bureau organisation et méthode Quand c'est la politique qui détermine la prise de décision, cela donne les résultats des décisions inappliquées car non applicables. loolu la Pathé Ndiaye xamle ci euh, euh, journal Sud Quotidien dans sa une mu ñëwaat rek ci euh, journal bi mu ne service public de la justice le justice le SYTJUST en grève pour 48 heures donc li nga mooy syndicat des travailleurs de la justice ah ñoom ñu ngi en nekk en grève depuis tey lañ ko commencé ba suba. donc euh, ñu ngi nekk en grève loolu la journal bi ñëw xamle tey euh, euh, dans sa une donc ñu ñëw si lii quotidien lii quotidien mun dafa fësal dans sa une mu ne Free obtient sa licence 5G à plus de 13 milliards de francs CFA donc nee na le deuxième opérateur télécom a disposé de cette euh, licence d'exploitation après la sonate loolu la journal bi ñëw xamle ñu des rek ci journal bi ah mu mu ne trafic de drogue huit kilos de cocaïne saisie à Dakar quatre personnes arrêtées donc euh, loolu la journal bi ñëw euh, xamal euh, à sa une soleil moom dafa ñëw rek ci programme bi nga xamante ne programme présidentiel la pour les cités et sites donc moom mu ñëw def ci gëstu bu yaatu a yaatu nee na quatre vingt mille mètres carrés ah quatre vingt quatre mille mètres carrés de. surface construite pour un coût total de près de quarante milliards de francs CFA mu ne construction de dizaines de grandes de moyennes et petites mosquées des sanctuaires d'église des résidences et d'infrastructures d'accueil des pèlerins pour euh, toutes les familles religieuses du pays donc euh, mu ne une œuvre titanique titanesque euh, programme euh, spécial su les secteurs religieux piloté voilà donc moom daan dafa ñëw rek si œuvre yooyu nga xamante ne def nañ ko au niveau des cités religieuses mu ne daal mu def si gëstu bu yaatoo yaatu journal bi ñëw fësal ko tey dans sa une ñu ñëw ñu jot rek si journal bi élection de représentativité syndicale donc ki nga xamante ne mooy mooy CNTS moom moo nekk Euh, toujours à la tête donc euh, journal bi ñëw fësal ko nee euh, la CNTS demeure aux commandes donc voilà donc loolu la journal bi ñëw fësal dans sa une le quotidien moom dafa ñëw ah si nee na les réintégrations dans les listes électorales ah, les alliés de Sonko presse Macky donc loolu la journal bi tey fësal à sa une nee LACOS et le F24 demandent au président de faire respecter les décisions de justice loolu la journal bi xëy mu ne subvention de la pêche l'État invité à retirer ses filets donc ñu des rek les plus nombreux donc ñu jàpp ne fi nga moom mooy Cap Vert euh, yi fa nekk mooy sénégalais ak bissau-guinéens ñoo fa a bari loolu la journal ñëw fësal tey euh, dans sa une. donc Walf Quotidien Walf Quotidien dafa ñëw si euh, bi les candidatures mu ne candidat en sursis. Halifa Sonko et Karim euh, dafa jàpp ne journal bi candidat yooyu nga xam ki nga xam ne moom mooy Karim Wade Sonko ak xalifa euh, euh, ñoom dañoo nekk des candidats en sursis donc loolu la journal bi ñëw feesal tey dans sa une donc ñu jëse si journal bi mu ne explosion dans un dépôt de hydrocarbures à Conakry au moins quatorze morts et de nombreux blessés donc loolu la fële la xewee démb ci. Guinée Conakry mu am nekk explosion bu baax bu métti métti am na te rey na fu lu tollu ci euh, fukk ak ñeenti doomu aadama les échos moom les échos moom les échos moom dafa ñëw ci euh, le conseil national euh, du parti présidentiel pour l'investiture de Amadou Ba Amadou Ba nee na l'APR prépare un grand hommage à Macky loolu la journal bi fësal donc ñu des rek ci journal bi mu ne Alassane Ndour ancien international nee na une fois qu'on est lancé à cette Sénégal risque d'être intenable donc euh, Alassane moom mu ngi xamal ne daal Sénégal bu commencé coupe bu ñu commencé coupe d'Afrique bi Sénégal moom bu commencé rek kenn dootu ko mën a téye donc loolu la bi xamal tey euh, euh, le journal mu ne saisine de la Cour suprême dans l'affaire Sonko la GIE l'agent judiciaire l'agent judiciaire de l'État n'a toujours pas déposé son recours donc euh, Yoro Moussa Diallo a fait délatoire donc ñu des rek si euh, si euh, journal bi ba tey mu ne saisine de la cour suprême dans l'affaire e n'a toujours pas déposé son recours loolu la journal bi xam ñu ñëw rek si sport ki nga xamante ne moom mooy Alassane nekk ancien international sénégalais ancien joueur moom nee na Et euh, une fois qu'on est lancé à kan la le Sénégal risque d'être intenable. Donc, moom dafa jàpp ne moom joueur bi Sénégal bu xasee euh, lancé aussi euh, Coupe d'Afrique bi donc dootuñ ko bloté ndax dayoo bi nga xamante ne équipe bi am na ko donc lu mu ñëw fësal ko tey dans le journal Les Échos. donc lii la ñu indiloon na tey si lu gën a fës si xibaar yi tey mardi 19 décembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax te di ñaanal yéen jàmm. SeneInfo International